Fâche le palais. waaw Nafi Ngom Keïta xam nga moom bëgg na jot ci ay déclaration de politique euh, de de patrimoine am ni mu gën a gaawee mm-hmm. waxoon na ko dem na ba wax ko président Sall ne am na ñu bëri ñoo xamante ni ñëwaguñu oh, wax seen alal ci naka la toll euh, moom nag Nafi ngoom fu mu toll nii am na ñoo xamante ne dañ ko mere ci loolu ndax jàpp nañ ne déclaration de patrimoine bi moom ci boppam da war a jaar maanaam xamle alalam ñaata la toll ndax institution bi ñu ko dénk di of nag lu am solo la jëm nag ci wàllu xeex lu jëm ci walu guerre di corruption euh ñepp nak manam jëw ñi eh, nga xamantene ay ministre lañu wala bok ay nit ñoo la xamantene dañ leena tab jox leen ay ndomb tank yu am solo faaw ñu dem xam li seen alal ni mu toll lolu ab loi la buñu voté ci assemblée nationale te kep ko xamantene itam eh, defo ko of nak amna sañ sañ tek la ay ay ay ay tan ay sanctionné la ngir rek nga respecter eh, loi bobule waye comme niñ koy waxé ci olof kuy diglé

entre deux feux. Mm. Euh, PDS xam nga euh, Pape Cheikh laaj boobu am ci tontu moom. Euh, du du du yomb fi mu toll nii dina jafe lool ndax ab Abdoulaye Wade mi secrétaire général parti bi. Mhm. ba tey waxul ci lu jëm ci loolu ñenn ñi ñu ngi jàpp ne Karim Wade mën na ko wuutu ñeneen ñi jàpp ne laata Karim Wade am na ay kàngam yu nekk ci parti bi ku ci mel ne Aïda Mbodj ku ci mel ne Modou Diagne Fada ku ci mel ne Omar saar ñoom ñëpp war nañ ko mën a wuutu ci bopp parti bii di parti démocratique sénégalais waaye daal xamante ne ñëpp a ngi koy laaj waaye tontu li daal amaguñ ko ndax tontu li kenn ko mën a joxe di Abdoulaye Wade soit boog mu jaarale ko ci ab congrès ni moom tontu ci du yomb waaye am na ay kàngam yoo xamante ne ci mhm. bi comme ni ma ko waxee Aïda Mbodj Modou Diagne Fada ñooñu def ay résultat euh, Omarsa waaw def ay résultat sax yu am solo ci ah. wote gox-goxaat yi ñu mu ngoog en ñu ngi xaar seen congrès d'investiture bu dee euh, populaire moom dafa xëyee tey

waaw campagne bi door na waaye ñu li ñu gis moo di ne euh, doxagul ni mu war a doxee njëgu kilogramme bi fixé nañ ko à 200 francs nguur gi nee na li mu si jublu moo di jàppale baykat yi waaye am na si sax ñoo xamante ne dañoo xeeb loolu bu ñu sañoon ñu yokk ko mm-hmm. waaye li ci mënti am foofu lañ ko plafonné foofu la yem 200 francs moom lañu koy jaayee mm-hmm. waaye ñu koy jaay gisuñu euh, client yu bëri gisuñu opérateur économique yi nga xamante ne ñoom ñooy faral di jënd euh, gerte gi mm-hmm. tax na daal ñu am jafe jëm ci écoulé produit yoy nga ah, am voilà donc campagne mbayum gi l'olé di populaire tay ba def ko ci bu financement euh, gouvernement Sénégal ak euh, ni ñu mëna euh, privé le gouvernement appelle à rendre le Sénégal plus attractif l'olé ci investissement au privé privé yi mhm, ñu ñu comme niñ ko conseil national du patronat ah ñoom it euh, faw ñu jàppale leen ci ay yenn marché yi faw ñu jàppale leen ci liggéey bi mm-hmm. euh, ngir ñoom it ñu mën a euh, liggéey gis ci seen bopp waaye itam jàppale mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay ndaw nekk fii di liggéey waaye itam fexe ba secteur yi ñu nekk secteur yooyu développé wu mm-hmm. lu ci mel ne ay tourisme ak ak yi ni mel mu développé wu ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bitim réew ñu mën a ñëw fii investir fii def ci seen i koppar Sénégal itam mën ci gis boppam waaye loolu dafa war a doore comme ni ko yéenekaay waxee Mhm. ci jàppale secteur privé boobu leen démb ba tey suñu gaynde yaa ngi dëkk buñ naan Al Jadida am nañu yaakaar ci ñoom yéenekaay bii di stade xëy na ak seen natal ak ni ñu nekkee forme ci pegg bi nii yéen a ngi seen coach bi Alain Giresse ñoo bind 24 lions à Al Jadida depuis hier Diafara Boukari euh, mbay ak euh, Pan dañ leen recalé waaye ña ca des euh, ña nga ca dëkk boobu di waajal li nga xamee ni moo di Coupe d'Afrique des Nations alors euh, regarder en même temps euh, ni koy gissé nous euh, lolé moy def ñu am yakar Fatima ci suñu gaynde yi mm-hmm. ndax ni photo ñu ngi ci forme quand même n'est-ce pas <laughs> hein? am ci yaakaar rek Pape Cheikh gaynde yi dem nañu démb wutali ci Maroc leen yëpp nag mu jëm ci wàccaayu euh, Coupe d'Afrique bi nga xamante ne dina am ca Guinée équatoriale comme ni nga ko waxee dem nañu njiitu réew mi sas na leen waaye itam euh, askanu Sénégal euh, sas na leen ni ñuy xaar ci ñoom mooy ñu def résultat quand boo xamante ne musul am ci Sénégal résultat bu baax pourquoi ah, pas ku ne 30 millions waaw ah. loolu bëri na ñun waa Macky Sall sax bi sax 30 millions ak Amina Poté lañ ciy <laughs> kon il y aura du trafic. <laughs> kon dina dégg. 30 <laughs> millions peut-être. man de damay dëggal muy dugal bi di dugal bi di dugal bi di bi kon yaa ngi élève biir après dañu dem parc Hann kon. Île de parc Hann <laughs> et puis euh, sunu lamb comme da fay dox ci lamb mom tam xeyna tay def ci xëtam bu euh, tournoi bu RDV euh, ñom sama gars yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi wane seen ah, favori Ama en double tête Zos ak guigui ñom ay outsider le ñu donc l'olé le yéenekaay bi di sunu lamb def tay ci sen xët bu njëkk ba nopi tam lu jëm ci suñu combat bi nga xamé ni ñong koy pare fileek avril qui di Charles Faye bu Futur Média wax na c'est le choc du siècle muy combat bu euh dem ci diggante euh, Balla ak que euh, démb lañu le ko régulariser ci euh, CNG dañu ko officialiser nak finalement dina am le 5 avril qui dit Ibnu Diop mom tamit waxna na joxe na xalaatam ci combat bobu Charles Fayni lolu moy mooy chogu siècle bi man ngeen ko fekk ci kay bi Fatima Ba tudd sunu lamb bu weesoo l'eau l'observateur mom xeyena na ak procès Karim Wade de wax nga ko ni dinañ déglu kii di maître Tam on ne sait pas l'essentiel moi, on va se euh, rendre directement au niveau de la rédaction centrale du L'Observateur pour le menu euh, de ce 8 janvier 2014. Bonjour Babacar. Bonjour Pape